salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakoo mbokk jullit yéen mbokk murit yi man Bolle Fall moom Cheikh Mamadou Mourtala fii ci Touba kër sëñ Fall Mourtala moo leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant leen xamal dafa am benn liggéey bu ñu tàmbale tey jii mooy deuxième édition bi ajuma ju jot dañuy def ay bernde muy ganaar wala yàpp nag ba ci yàpp xar def ko ay sandwich yóbbul ko ñi nga xamante ni ñooy jaayante bés bu set di toog ca barabu sëñ ba di ko jàngal juróomi kaamil par waa bii mooy deuxième édition bi ñu doon lancé appel nag ci mboolem seen képp kuy taalib boo xam ni yaakaar nga sëñ Tuubaa te amoo benn empêchement mën cee mën cee jàpp ñoo ngi jaayante daal bu ku ko man bu doon minimum quatre mille ba cinq mille francs bu ko defee ñu mën ci jënd ganaar la cay topp mën ko yóbbu suñu ambition daal mooy ñu am cent bañ a yem rek di joxe ci barabu sëñ Tuubaa doomu sëñ Tuubaa yi ndax ñooñu tam am na ñu fa toog di fa jàng kaamil bés bu set ba mu jàll ba dugg ci biir barab yi barab maam Seeran Fall ñoom Cheikh Issa Dieng nag ñoom sëñ Baara ñoom ñëpp ñu fay yóbbu ci barabu sëñ Chouaïbou ak sëñ Basiru ak sëñ Sidi Matar guy mbind yooyu yëpp ñu fay yóbbu ay ndékki di ko sante sante Serigne Touba mi nga xam ne amul lu dul moom waaw suñu numéro contact nag mooy 78 179 73 84 képp koo xamante am nga looy yónnee boo ko yónnee foofu ñu dajale ko bu alxames ñu dem def duggi ñu dem duggi fas yéene bu ñu xëy fajar teel ñu jaayante yóbbu ko ci jumaa ji ñi nga xamante ni ñoo bàyyi seen lépp jàngal sëñ Tuubaa kaamil bés bu set foofu ak ay xasaay. waaw boobu ba léegi na wax dëgg yàlla samay am di jaam yi nga xamee jot naa leen a xam ñoom laay woo téléphone rek ñiy dugal ay cinq mille ñiy dugal ay dix mille ñiy dugal ay mille waaw ba ci dëkk bi itam am na ñu ñoo xam ne ndeysaan duñ fi sax toog di naan café gi may café gi may joxe si ngir jëmmi sëriñ Tuubaa bés bu set ñii dem may jox mille bu ma leen waxee ñuy joxe mille ñuy joxe cinq cent waaw moom daal wax dëgg yàlla daal ba mu tàmbalee ba léegi moom moom moom moom ñoo ngi ciy sant sëñ bi waaw waaye nag bu suñu yéene daal mooy minimum ñi am cent ganaar par weekend par par par euh, par ajum ajuma di ko tasaare ci barabu sëñ Tuubaa ak doomu sëñ Tuubaa yi ba ci guy mbind ba ci daaru mbindam ba ci euh, fële pencum sëñ Suhaybu bu yitte yi ni mu ñu dikkee nag lu gàtt la ndax danoo jékki-jékki sëñ Murtala mbedd bi ma taxaw nii ma nekk di ko setal bés bu set sama initiative bopp ba benn bis ma am ay gone yi ma ci jàppanteel bu leen tur fii ndox ñu dëgër bopp ba am sax ñu ma ci jot am fu ma jaar ak ñoom bu coow li bare sëñ Mourtala feeñu ma ci génn fii kër doomu bu naan sëñ Fallou mu sëñ Mourtala ni ma paate ma ni ko Mbàkke mënu ma fonkal ma roq bii kon léegi dama ci am ndigal léegi ñuy daaw di dox di dox di dox ma continuer di setal roq bi mu continuer ba ci garabu Daaru Xudoos si bés bu set bu ma xëyee fajar gi sëñ sëñ maam Seeraan Fall ci boppam feeñu ma feeñu moom tamit ci jëmmam ca Ndar mel na lu yëkkati ab gaal di ma jox kon ma ma ma ciy sant yàlla kon moom gis na li gis na liggéey bi muy liggéey fii sëñ Tuubaa xam naa ni bég na ci te soññ na ma ci léegi na ma ne comme que léegi am naa ñaari ndigal léegi damay sant bala may tàmbali liggéey bi kon dam naa génne kafe ak ataaya ak mburu di ko joxe waaye bu àjji ma jotee ñu soppi cin ndey mbili gi ngi tax ñuy sant muy sëñ Tuubaa ak maam Cheikh Fall ñu fekk leen seen i barab ña nga xam ñoo nga fa toog bàyyi seen lépp di fa di fa di fa di fa wàccee kaa bi di fa jàng di toppatoo barab ba ñun di leen ndékki ñu leen ñu leen ISRA bi doxee ndax lii ban ko tàmbalee léegi ci buntu kër gi ëpp na weer waaye lii may def nii bi mooy deuxième édition bi ajjuma jële passé laa ko tàmbali. mu bëggoon itam mu yaatu ba taali bi yëpp buñ ci mënee jot jot ci ndax yamul kese ci togg bernde yóbbu dañuy wër di setelaale li wër jumaa ji ba ci garabu daaru xuddoos yi yooyu yëpp lu mat juróomi at ngi nii ñi doy na moom seede ci laay yëngu ku fi jàppanteel bul tuur ndox fii wala bu fi def mbalit laa fi jàppante keneen ku nekk ci leen sama yoon nekku ci waaye bul tuur ndox fii waaye bul bul takkal fii képp ku ma jàppante ci digg digal bi loolu lan jàppante képp koo xamante ne daal dégg na message bi na ci ñëw tàbbal loxoom xeebu nu mille xeebu nu deux mille francs nu téeméer liggéey sëñ Tuubaa la ndax sëñ bi ba mu ba mu taxawalee jumaa ji itam li mu ñaar fukk juróom-ñett boobu bu ñu demee ba di ko yokkaat sëñ laa defe ni am na ñu ñëw sax ñu ne ko milliard genn wàll bi mën nañ ko joxe mu leen déedéet yoonu murid da xewul noonu damaa bëgg taalibe bu ne ba ci jàkkatu caaf bi sax juróomam danoo bëgg mu tàbbi ci moo tax may lancer un képp kuy taalibe yaakaar Serigne Touba rek loo ci man muy téeméer muy 1000 francs numéro téléphone baa noonu boo ko tàbbee incha allah daan ci jot bu alxamesee maag sama jigéen ñu baax yi toog fii màggat mi ak euh, sama rakk ju baax ji kinne ak seen i doom ak baay laaxam xam yi nga xamante ni ndeysaan fajar laa koy soññ mu jóg ñu ànd ci liggéey bi du ci toy du ci tàyyi du ci toqi ñu taxawu ko di ko yóbbu di ci sant sëñ bi gannaaw sëñ bi moom dafa noonu loo xamante ni mun nu koo fay leen donc lan ko amee di ko sant tey góorgóorlu ci ndigalam tey moytuñu ko tereem. waaw kon ñu ngi nuyu rek mbooloo mi fi taxaw ñëpp nga xam ne tamit comme commencement la tamit ñu kenn di sant paate mi nga xam ne wax dëgg yàlla heure bu xëyee koñ bi amul benn jigéen boo xam ne day génn di bale mbeddam moom mooy bale lépp. amul fenn fu muy bàyyi ba ci suñu place yi sax da koy balewaale yàlla xam na loolu waaw ñu ngi ko ci sant bu baax na te di xam ne lépp loo xam ne mi ngi koy def te liggéeyam bi nga xam moom lay defal Serigne Touba rek yàlla na ko ci yàlla mbay mbooloo moom mu kawen do jottam daal ma liggéey Serigne Touba moom mbanduk diw la rek noo ci sóoboo rek noonu lay kii noonu nga ci nii ne kon na ñuy santaat bu baax na ruq bi meloon na noo xam ne boo fi jaara na nga naan tudd yàlla ak fii yëpp te bu ci bu xëyee buñ noddee rek lay jug buñ jullee pare mi ngi ci ànd xale yeeg sëñ laax ak ñi ñëpp ñu seet seetal ak yëpp mu dem ba ci yàgg sëñ Touba yokkate ko mu def ay aadiya yeex naa laaj sax waaye boo liggéey sëñ Touba moom da ngay woo ñëpp rek ñu jariñu ci mm. ñuy santaan nag bu baax nag ñu def pare nañ nekk ci ginaaw lépp lu mu ci woote rek nañ ci ànd ak moom auzu billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalib yi nga xam ne yéen a ñuy seetaan ci télévision bi ñu ngi leen di siyaar bu baax di leen jox seen wàccuwaay di ñaan sama du fekk lañ ci jàmm avant tout nag damay ñaanal sëñ Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ñaanal sëñ Amdu sëñ am sëñ Amdi Moodu Mbenn Fall Baye Fallam bi yal na fi yàgg lool te ànd ak wér muy xalifa général des Baye Fall euh, ku gis jotaay bi nag danga xam ne e, liggéey Serigne Touba du weesu euh, sëñ Paate Fall mii nekk suñ ginnaaw ku ne xam na ko njabootu Serigne Touba ga ca réew ma yàlla dogal na nag mu soppi ab liggéeyam ñëw Touba. di fas yéene juma ju jot muy defar ay bernde di ko yóbbu ci jumaa ji ak li wër jumaa ji muy daare kaamil muy muy muy daaru Minam muy pencum seen soñ ba ci bariwu maam Cheikh Ibrahima Fall li wër jumaa ji rek bu ko tuddee jaru ñuy ñuy lim lépp euh, niñ ko defee mooy day togg ay bernde euh, bu teyee mu def ko ay ndawalu xar dawalu nag boo liggéey mu def ko ay ganaar ñuy lancer appel ñëpp nag euh, ci koo xam ne am nga yéene am nga pas-pas ànd moom ci liggéey bi tàllal na la loxo xam naa dina joxe ay numéro yoo xam ne ci la ñuy jaar ba woo ko mën a tàbbi ci liggéey bi euh, man nag euh, bis ko tey incha allah fas naa yéene ànd na moom ci liggéey boobu lu mu laaj ma jox ko ci kàttanu yàlla ak keneen ko mel ne man ku ko gis daal xam ne yàlla ci liggéey Sëñ Tuubaa ci lay xëy ci lay gont maanaam avant daayira xidmatu xadim bii di sosu moom moo daan jël burweetam ànd ak ay gone di wër jumaa ji mbuus plastique lu xeetoo lu bokkut ak war ma jumaa ji rek da ko fii dindi def ko ci poubelle yi bu oto yi ñëwee jël ko lii oto yi kii sax ci moom bi la sokk ko xam na ndax initiative bu baax moo taxoon lii tey jii mu am fi ba tax naa ñoo ngi lancé appel ñëpp di woo ci liggéey Sëñ Tuubaa bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa waa ñu ñëw rek santale ko sëñ Touba ndax sëriñ Touba am tànk kanam rek laam amul yu ginnaaw te te noo ci duggee rek mën nga ci am lu kóob kon yàlla na yàlla nangu sant gi yàlla yàlla may ñu kàttan guñ liggéeyal sëñ Touba am ci ngërëmul yàlla. Hmm, ci daraja yonent bi ak barki taalibe bi Maam soo Ibra Fall jërëjëf jërëjëf.